comme ni ñuy ànd ak yéen tous les mardis à partir de 14 h seen émission bi di xew-xew nga xam ne fépp fu xew-xew am dañ fay dem ànd faak yéen ñi nga xamante ni yéen yéen a émission bi te nag bi ngeen ñu gis ñu taxaw fii ñu ngi jokkul kaw jokkul kaw la ñu nekk fi nga xamante ne fi la xew-xew boobu am bërki dem moo njaay mu nekk xew-xew bu métti lool lool ku ñuy wax Babacar Ngom ñu gën ko xam si Mbayar waaye yàlla def nag ñu ne dañ ko dóor bal mu mujj ñàkk bakkanam mu nekk lu metti lool lool lool lu ci mënti am ñu ngi fi si Tëngéej Pape danga may topp ñu daal di xuus dugub biir Tëngéej dem ko ñoom Babacar ngoom moomu Mbaya Fall bu ko defee ñu xam lan moo waral noonu mu ñàkkee bakkanam ak bal bi ñu wax ne moom lañ ko dóor si gannaaw bi ñuy waaj a dem Barça. voilà papa ñu ngi lay nuyu tey dañu ñëw jokkul kaw gannaaw tiis bi nga xam ne moo dal seen kaw ndax seen doom ji nga xam ne da dem yàlla def mu ñàkk bakkanam nan nga ko yëgee en tant que wayjur bu bokk si gox bi waaw maa maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay di fay sa waa ji nga àndal c'est mbir moom met nañu trop quoi métti nañu trop li ñuy dem noonu yëpp dara waral loolu bëgg a tekki rek seen yaay seen waajur loolu moo tax parce que xam nga dafa am seen naw loo dugg si gaal dem mais bu ñu àggee dañuy ñëw ne àgg nañ si jàmm loolu moo war a tax ñuy gën a góorgóor pour te dem yëpp pour lan la seen waajur rek la bëgg a teg kese kese kese la mais leneen. ñu dem ñàkk seen bakken si yoon bi comme ni ko xale di defee ñu si ëpp bu ñu demee am na ñu xam dañuy àgg dëgg la mais am na ñoo xam si yoon bi en tant que waajur yow ban yëg-yëg am waaw seega booy dem doo xelaa ne da ngay ñàkk sa bakken xam nga da dem rek par yàlla def mu loolu am si mais yow boo jógee fii di dem àgg da nga gis xalaatoo na si na ngay ñàkk sa bakken àgg moo ne sa objection moom ngay gis te ñoom ñuy dem li si ëpp ay moo lañ xam nañ géej mais ñàkk àgg yàlla moo ko yor mais chaque jour boo jógee fii di dem moom àgg rek ngay gis moo tax voilà Pape ñu daal di dugg fi nga xam ne mooy mbaar mi nga xam ne fi si jokkul kaw la toujours ñu ñëw fekk fi jeunes yi nga xamante ne am na ñuy fi nekk te kenn si ñoom ñoo ñàkk seen bakken nekk rek si ñoom salaamaaleykum sama gars yi na ngeen def bàyyi nañ si jàmm tey waa 7TV dañ fi ñëw ne mission xew-xew Pape ñu daal di continuer rek ma laaj fi quelques personnes yoo xamante ne ni nan lañ yégee xew-xew bi dal seen kaw fi nga xam ne mooy jokkul kaw gannaaw bi seen benn doom sëñ bi yow na nga def yaa ngi woon si groupe bi doon dem kero waaw waaw maa ngi woon lan moo fa ah ñun toog nañ di regrouper nii rek di xaar man parce que dama si yem ni ah ñuy xaar xam nga des fois ngaalu mbëgg boo amee chance dégg ko nga paas nga ñàkk a paas man nga bokk si ñuy dem waaw man moom paasuma woon quoi mais yëg naa ne gaal day génne mm-hmm. rumeur bi quoi xam nga ma ñëw toog assisté fekk booy toog ma toog bu ñu yëgsee ma jéem a burle koom yëpp parce que dëkk bi neexatul mais à la suite. laa jekki saa ne ba dégg ne beneen groupe parce que ñaari groupe la benn groupe bi coow am affaire bi déclenché ay bal tàkka xam nga benn copain ne ma rey nan benn booy quoi xam nga man si laa dawee parce que dama yor njaboot am yoo xam ne sama ufin mayu ma may toog foofu mais mu ñu bisee man ñaawlu naa daw gi ma daw benn ñaawlu naa tamit takk deri liñ def xam nga parce que nit ki wuti am yaakaar quoi ne damay wuti pour am am yaakaar ñun ñëpp yaakaar la ñuy demee ah ñun yaakaar la ñuy demee rek amaana sax bu ma demoon du ma yegg amaana bu ma yeggee mën naa bañ am dara mais toog fii si town bi fii toog ay fan bu ma ndekkee du ma am leneen lu ma denca dangay ngay xëy di lijjantiwaat xam nga yooyu moo tax booy di jéem a dugg si gaal yi di dem du ak yaafus du question insister loo xam ne état bi nee na bu kenn dem bëgg nañ toog ah bëgg nañ toog mais tamit nag toog boo xamante ne maanaam si coono ngay dundee ba xëy dee si lañ jàpp ko en quelque sorte toog fi géej gi kaaye na doo am fukki dërëm état bi xam nga mool du ñu mars du ñu kaas man moom mosuma dégg mool ba mars xam nga Eh, mool yi jox ay subvention ay machine man si gaalu jàmbur laay dem géej borom gaal gi bu amee machine man loolu aw ma si intérêt te pourtant mool laa sama benn nar laay yor kon ça veut dire subvention yi man bokku ma si mais bu fekkonte ne dañ jël man à part ñu jox ma loo xam ne mën naa tooge fii waaw boobaa loolu man man naa ko nangu ko waaw dañu si sama yaakaar dañuy toog mais maanaam toogal ba pare demalal sa bopp waaw léegi toog naa quoi demalal sa bopp lañ ma wax toogal joxuñu ma lu ma téye waxuñu ma lu ma téye toogal lañ ma wax mais demalal sa bopp waa demal sama bopp bi sama xel li ma si yaakaar mooy tukki ngir jéem a am ay teraanga parce que am na ñu fi demoon ah bu ma ñëwee jënd xaram soixante dix mille ñoom ñoo ñëw jënd xaram deux cent cinquante mille exemple quoi. loolu mooy tax yéen ñëpp ngeen bëgg a dem waaw biñ ñëwee ne ñoom am nañ kër man ma yor benn népp am cinq tout tànk xam nga loolu bokk na si li ñuy poussé sama yaakaar quoi si man man sama côté bokk waaw jërëjëf ñu ngi koy masaw ñu daal di wéyal xool ñi nga xam ne àndoon nañu keroog si si yëf yi bi bi jéey ji am jombul bu ko defee ñu gën ñu expliquer fee yi nan la demee ndax mbaar mi fii fekk naa leen ñu teg seen attaaya nag ñoom di attaaya jàkkaarloo géej gi di xool jàmbaar ñu ngi lay fay yaa booy tey ça va alhamdulilah tey dañ fi ñëwoon fii si Jokkul Kaw yi xew-xew bi nga xam ne moo fi dal yow da nga bokkoon si groupe bi doon dem. waaw balaa dara damay sant yàlla julli saa borom di wax inna lillahi wa inna ilayhi ndax kii ñu rey kii ñu boom sama rakk la suñu ñaari papa ñoo bokkoon ndey ak baay maa ngi ñoom moom ñoo yendu ñoo añandoo ñoo ndékkindoo ñoo reerandoo dama génn ni par hasard nii rek doon doxantu booru géej yem si. parc bi ma gis fi gars yi toog du ma client paasuma xaw ma ko tëgg gaal gisuma ko tëgg gaal ma dox ndànk ñëw toog si ful bi toog si ful bi pour lan pour bu gars yi dem ma dem parce que man si ñi ñu rapatrier 2006 si laa bokkoon 2006 dama mbëkki woon dem naa ba àgg ñu rapatrier ma ma ñëwaat Sénégal toog gisaat occasion pour dugg ci gaal ma du gisaat occasion ma exploité ko mais fi ñu toog di waxtaan di xaar gaal ndax gaal gi dina ñax du ñëw fi la njëkk sa rek dégg ay bal. ñuy daw soobu géej ñi daw jaar si xeer ñuy daw jaar ville mais ki ñu boom si ñuy daw jaar ville si la bokk ndax fi ñu ko boomee ak fi ñu daaxee gaa yi mar na mat 600 ba 700 mètres kon kii ko boom daf ko topp wala dafa topp ful bi pour tirer mais man li may wax mooy état du Sénégal maa ngi commencé si président de la république son excellence Macky Sall ndax ñun ay ndaw yu réew mi lañ quoi ñu fi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo. duñ juddu jéer duñ juddu mbarantaan fi lañ dëkk fi lañ sosaanoo jokkul gi 1746 jusqu'à nos jours jokkul mi ngi am pour la première fois gendarme boom fi nit dañ waroon a dem nag pour marcher pour wane suñu naxar mais le préfet ñaan njekk si autorités si kilifa yi si imaam yi kër ajjuma imaam yëpp si lañ xutba ñu ànd ak am dal toog mais li may ñaan état mooy ñoom ñoo ñu war a protéger gendarme ñoom ñooy suñu protéger ñoo ñu war a sàmm ñoo ñu war a aar mais ki ñu war a aar ki war a yeete soo biddantee rek ñaaw na ñoom ñoo ñu war a sàmm ñoo ñu war a aar ngala nañ téye seen fital yooyu ñuy dóor nit ñi di leen rey ndax ñun fii nekkuñu fa biir kenn rey ñu ñu ëppal na si ñun sama classe dañ désespéré mën naa ne désespéré moo tax ñu dem clandestin ndax bu fekkee da nga juddu nekk mool di dem géej yaakaar géej ñu auparavant fii lañ daan dem kasaw kasaw jaaxle mbàmba ma boo teeree naru juróom juróom bi junni tey da ngay dem mi da dem ba 500 500 mètres 500 kilomètres dem marée boo teeree def si géej 21 jours boo teeree looy narut 25000 am jabar am doom am yaay am papa ku feebar nga faj fay courant fay ndox mais kooku mëno mëno mënoo am espoir espoir bi nga war am pour dund si réew mi amu fi mais bu fekkente ne loolu yëpp dafi daje ñoom ñu war ñoo dalal pour jox ñu ay moyens ñu téye pour toog defatuñu ko ñu du ñu rey fii wóoratul. day metti léegi yéen ban ban géej ngeen euh, dajaloo woon pour mën a dem. waaw boo xoolee man dama génn di doxantu jëm si quai bi pour day jën yu ma lakka bi ma dawalee sama bët en tant que mool gis ay nit yu toog nee ci booru quai bi ma doxantu ñëw waa ñëw ba ci parage yooyu gis gaa yi toog ma ñëw toog am na sax ñu ne ma looy def fii ma ne li ngeen fi def laay def xaw ma sax ñoom lu ñuy def wax dëgg na yàlla ma toog action am mais bu fekkente ne dañ dund si réew moo xam ne dañuy reyaate parce que barki démb dégg naa ñu rey Thiès il paraît gendarme moo ko tiré bal dama ko dégg démb il paraît am na ku gendarme téye Pikine bal la ko dóor waaw mais ñoom ñi ñu war a rey aar bu ñuy dóor ay bal fan lañ jëm ñun est-ce que fii wóor na. mais est-ce que xale bi gaañu nii leer na ne ki ko rey homme de tenue la. non xam nga bu fekkente ne dañ toog fi ñun gisoo amul benn civil bu am fital fii Sénégal gisoo fi civil bu yor fital te clandestin lii gën a wér ci clandestin mooy hé fu ñu gisee ko sol tenue daw la ñuy seet parce que sëf ki pël la kenn ku ne sa bopp ngay sama pour bañ dem kaso mais man maa ngi fa. gis naa ko def sommation tëf ñetti bal ful bi tasaaroo mais bu ful bi tasaaroo doy na mais jarul nag nga topp nit ñi ay bal di leen door ay bal te nag taxi ko bu ma la fekkee foofu def sama nopp dégg mu wax loolu dafa ñaaw sax si réew mu mel ni Sénégal nit ne fi nga ne fi nekk Sénégalais comme moom un patriote comme yow di la dóori bal te un policier wala un gendarme nga def yow formation bu mat sëkk ñu ne gendarme nga jox la tenue jox la liif mais nag du kenn xam nga kan moo def lii def kii li am ni mooy ki nga xam te ne mooy joxe liif joxe mënat joxe fital mooy am nga droit takka am nga droit dóor am nga droit rey ndax fital koo ko jox ku la feesloo moo la yàppaloo ku la jox fital moo la reyloo ñoom mën nañu yor ay ay ay homme de tenue la ñu mën nañu yor ay pistolet te du tax ñu rey nit ki mais bu ñu ñëwee fekk leen yéen ngeen nekk ay jeunes yi bëgg takk dem mën lañ leen disperser beneen burul dóor bal kenn di ñàkk xam nga ku la feesloo moo la yàppaloo wax naa la ku la feesloo rek moo la yàppaloo ku la ku la feesloo moo la yàppaloo mooy nit boo ko joxee nag jox ko arme nekk feesal ma bu lakkee si ndabal ga lu mu barkeelu si doo ko wax dara mais nit ki nga jox fital jox ko mbërën naka takkal jox ko liif naka dóor la liif pour dóor la mën a takk la fital pour tiir la moo nañ fet seet beneen formule bu dul joxe fital joxe mën a joxe arme am na loo xam dafa ñaaw si Sénégal ak si moromam parce que gendarmerie wala policier kii ñu war a aar ñu sàmm ñu ba bu ñu nalawee suñu nelaw neex wala ñoom ñoom ñi nga xam te ne ñun ñu leen di fay pour ñu leen di parce que ñoom ñoo opté loolu ñun ay mool lañ opté nekk opté ñu dem quartier pour nekk ay militaire wala gendarme dañ opté nekk ay mool di dem géej di jàpp jën parce que jàpp ñuy jàpp jën ça nous fait plaisir bi sa mais dem gis ay jën fekk jën fi mu nekk ñu jàpp ka loolu mbégte la si ñun ñoom mbégte la su ñoom ñu sol tenue bi fierté la su ñoom ñu sol tenue bi nekk ay alkaati wala nekk ay takk der mais noonu la ñu war a aar noonu la ñu war a protéger maa damay ñaawlu billaahi barki borom Touba mënuma amuma mais su ma amoon wala ma mën lu ma fayoo ki ñu rey kii rey su ma ko xamoon su ma ko mënee damay fayu parce que sama rakk la rey. mais xamoo ko mais fi mu toll nii mënuma fayu. d'accord mais fi mu toll nii Barça bi comme ni ko xale di yéen moom pare ngeen seen wàccaale. xaw ma keneen waa jokkul xaw ma kenn man sama waxi bopp laay wax. man diis fi ma toog di waxee ma gisoon leket gi léegi dem Espagne ma dugg si aw ma paas nag yu ma paasee xaw ma kuy tëgg gaal mais bu ma gisoon gaal gi fi tëgg fii wala leket guy dem Espagne man dinaa dox ndànk dugg si tu ma tàggu sama yaay tu ma tàggu sama papa tàggu ma jabar tàggu ma mag tàggu ma rakka damay jël sama propre responsabilité parce que man mool laa ba ma amee huit ans ba maa ngi si trente-huit ans mool laa géej laa xam géej laa xam moom laay dem man géej gisuma si dee barki démb la sa oto bi daanu féer ñaata personne la rey si yoonu Louga bi cent et quelques personnes est-ce que boo demee si oto bi doo gis oto yu daw jëm Louga sëfër dañ xalaat dee si benn sëfër xalaatul dee si tali bi man moo laa xalaatuma dee si géej nu géej mën a mel comme sëfër ni ñuy bi di amee doo daan am interception am rond point ñu koy exciver di fi ñu jëm mille sëfër boo leen dajoo si benn oto ñu jëm Touba kenn naay dawal mille mool si genn gaal kenn mooy yóbbu gaal gi ku sonn sa morom aw la géej lañ xam géej lañ man géej gi pour ñu toog fi ñun foog ñu am lu ñu téye si géej gi ndax kuy tëmba si géej xoolal tu imagine mbaal mbaal un kilomètre deux cent mbaal si mbaal moo xam ne cent mètres doyoon na si nga jàpp jën léegi un kilomètre deux cent ngay yor boo demee benn mbaal boo kayaa ñibbi boo jàppee ñibbi est-ce que c'est normal amatuma lu ma mën a tey fii man dama war am kër dama war am oto dama war am lii dama war am laa sama papa kër ku feebar feebar maa la war a faj dama war am ñeenti soxna dama war oto dama war am kër dama war a yóbbu nit ñi màkk nag tam xarit dama ko war a maye waaw lu tax ma war a toog fii nii si ay 1500 2000 ça c'est fii man bu ma gisee luy dem damay yóbbu xaw ma nag keneen mais keneen nag moom yóbbu ma ko mais man diis sama waxi bopp laay wax sama waxi bopp bu ma gisee luy dem dina yóbbu merci mu ngi noonu dégg ngeen ko xale yi nga xamante ne ñoom la ñu si jokkul kaw ñoom itam ba léegi dañuy wàjj takk di jóg ne nañ gisatuñu leen fi téye moo waral tax saa yu gisee gaal dañuy dem kon yéen da ngeen fekk ful bi toog noonu rek ngeen dugg même bu ngeen paasulee bu gaal gi ñëw di ma a gis fa gaal guy dem bu ma xëjee ba gis gaal ak sama bët dama yéeg force ay ayca ñu dem kër ga kon xool ji la nga xam moo fa xew safar bu dem te du paas man moom laa ma gisee gaal dama yéeg te du ma paas fii laa ko teg ñu leen fekk fi ci mbaal mi nga xam ne mu ngi si jokkul kaw gannaaw bi ngeen ñàkkee seen benn doom boo xam ne danoon dem si gaal gi nan ngeen yëgee xew-xew bi dal seen kaw xanaa muy tiis bu métti nuy wax xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ndax euh, lu métti si nit lay dal mais bu ñu waxee au fond métti na ba léegi nu ngi koy naxarlu ba léegi ba fi ñu toog nii parce que mbir mi jëlee nañu kaw parce que bu ñu taxawee xale yi dëkk bi amatuñu dara ñu ne dañuy mbëkki même li waroon na doon ñu ñëw disperser foule bi mais ñëw rek soo ngën di rek dóor loolu ñaaw na trop mu ngi koy ñaawlu ba fu yem daal métti na trop. Tëngéej nekk dëkk lébu nekk dëkk boo xamante ne mool yi dañ fi bëri bu ñu takkee pour waaj dem comme ni ko xale di waxee Barça yàlla def am ku si ñàkk bakkanam euh, c'est la première fois mu am fi fii ñu ñëw mu jokkul kaw wala. waaw lii li am ni c'est la première fois sax nu door a gis jokkul kuñ fi boom jokkul kaw c'est la première fois nu door a gis kuñ fi boom si ñun suñu génération bi daan naa dégg nag si paa am ah mag ñu naan amoon na fi 1968 te loolu élection la woon mais lii am ni wax dëgg yàlla nu ngi koy ñaawlu rafet na ñaaw na trop trop mise de la justice nag Ismaïla Madior nu ngi koy tàllal loxo di ko wax ne lii ah si njabootam lañ bokk ñun waa Tëngéej ñun waa jokkul nu mu gën a leeree nu gën si moom ministre intérieur Antoine Diome lii day bu te ne waa këram ni la bëgg a dundee ñun en tant que ñun ni citoyen Sénégal mitti na de waaw bu fekkente ne population bi ñoom mënuñ ñu mën mënuñu ñu garee lu dul di ñu rey wax dëgg yàlla li mitti na waaw waaw ñu lay gën a acca mu ngi noonu Pape dañuy wéyale nag dem kër gi nga xamante ne mooy que ñoom Mbaya Fall ñu gënoon ko xam si Mbay Ngom mais ñu koy woowee Mbaya Fall moom mi nga xamante ne il est âgé de 32 ans ñu xool seen waa kër ñoom itam nan lañu dundee xew-xew bi gannaaw yi ñëwee fi si Jokkul Kaw voilà Pape ñu ngi nii toog fi nga xamante ne mooy mbaar mi fekk fi way juróom wu góor wi nga xamante ne moo jur bayaangoom fekk fi aussi rakkam moom mu jox ñu kàddu pour rakk ji man sànni kàddu nga xamante ne moom fekke woon na lépp ñu ngi leen di massaw baax a a baax Pape way juróom wu moo nekk nii ñu ngi koy wu baax a baax comprendre nañu douleur bi fu mu toll ak moom ndax euh, doom dafa jege xol waaye ki nga xamante ne rakkam lay tamit moom assisté woon na rakk ji nee na ma lépp lu ci war daanaka moom moo ko def mu jox ko kàddu pour mu wax si papa ñu ngi lay nuyu di la massaw euh, leen di fay di naxarlu li am du ñun rek la naxari képp ku ko dégg naxari na la képp ku dégg mbir mi rek naxari na la affaire bi bi bu amee à 23h suma benn doom moom ma moom demul woon pour voyager mais dafa demoon maanaam pour dëñ kumpa puisque du benn waajur boo xam ne bii dina dina dina dina dina ngemb doomam pour mu dem. booy dañuy dem ba pare waajur yi door a xam ne booy dem nañu kii dem nii du waajuram moo ko waajal moo waajal boppam bu ñuy dem dañuy nëbbu ñu woo ma xamal ma ne daal booy seen seen voyage bi échec na ki ma oo ma ne ko lu tax mu échec mu ne ma gendarmerie moo fa ñëw tiire fa ay lacrymogène ma ne ko léegi ani booy bi ani booy yi mu ne ma xale yi ñoom ñëpp ñu ngi ñibbisee quelques minutes après mu oo ma ah lu doole du ay lacrymogène rek de puisque Mbaye dóor bal bal fetal lañ ko dóor ba mu ngi daanu ci laa jógee ci laa tëbee jóg oo benn xale bu nekk ci koñ bi bu yor scooter mu supporté ma yóbbu ma ma ne ko fu ngeen nekk mu ne ñu ngi euh, sapeur ñuy dem en cours de route ñu dajee benn boy bu fa jógee ñu ne ma nekk ñu sapeur dañu oññoo ko dem hôpitalu géej ma dem hôpitalu géej fa laa ko fekk. ma ñëw fekk fa alkaati yi ñu téye ma ma ne leen nag foog ma dugg fekk kii ñu jam sama doom la ma damay dugg médecin bi dégg ci ñu ubbil ma bunt bi ma dugg ba ma duggee xool booy bi gis bal bi fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu génne dama ko gis xam naa balu fital que def naa service xam naa balu fital xam naa FM xam naa yëpp te bi ma ko xoolee xam naa ne c'est fini bi ma ko xoolee xam naa ne génn naa dina ay rakaam nga foon yu jigéen di jooy mais xamuñu ndax dee na wala deewul mais man bi ma ko xoolee xam naa mootuma tey sama bopp ma génn pour de rejoindre gendarmerie yi foofu ñu nekk fi ñu jamee woon xale yi te xale yi dugguñu woon ci gaal dañu toog si tefes gi di xaar gaal gi leen war a yóbbu gendarmerie ñëw rek commencé dóor ay bal te ki nga xam ne kii da nga ko jam bal bal bu duggee duggee ci ginnaaw génn si kanam donc kii da doon daw pourquoi ñu dóor bal ba réel pour lan li ñu gën a métti loolu la dee gi métti woon que yàlla moo ko tudd loolu foofu la waroon a amee mais ba réel bi pour lan pour lan ba réel ki nga dóor bal ci ginnaaw mais kooku da doon daw boo toppee nit muy daw jarul ngay tiré loolu daal euh, ñun famille bi à l'unanimité nu bëgg a yoon yoon doxal yoon lii justice dafa war a am dañ ko war a àtte si yoon kii fauté ñu sanctionné ko muy police muy gendarmerie muy armée homme de tenue bu mu doon nga def dégâts yu mel nii dañu war a xool kii def jëye ji mu am sanction si moom na Sénégal dañuy rey rek alkaati gendarmerie yi dañuy rey rek du benn suite ñu nag lépp loo xam ne lii di den ko ci def ba yoon yoon ate yoon ñun dinañ ko topp duñ ko bàyyi nii rek duñ taxañ taxañee suñu doom nii rek dem suul ko et puis nu bàyyi comme ça comme ça non non na def li si war justifié xam kii def loolu sanction bu tegu si kawam kàddu yooyu daal laa ne woon dinaa ko si sànni daal waaw loolu laal naxari nañ trop ba lu fetal amu fa yoon amu fa yoon yow yow sa bopp xam nga ne xale yu toog nii di xaar gaal pour mu ñëw yëb leen ñu ñëw rek commencé tirer mais loolu mel ni ay ennemis ce pas des ennemis ñoom ñoo yor suñu sécurité ñoo ñuy aar donc ñoom bu ñu ñëwee di tiire ay bal am na benn kii bu ma déglu léegi même loolu sax dañ ne woon bu fekkoon ne dañ na waa Espagne ñoo ko def sax à la rigueur mais waa Espagne ñoom bu ñu ñëwee dañuy dañuy dogale gu yóbbu leen mettre leen dans des bonnes conditions d'après vidéo yi ñu gis jox leen ñu lekk jox leen ay yére mais yow nga ne yow yaay yaay protéger sa population sénégalais nga nga doon leen di leen ay ay barreel mais kenn mënu ko wax kenn mënu ko wax. état bi ci jël ci mbir loolu dañ na woon dañ bu ñu defee suñu dëj bu pare famille bi dinañ toog lépp lu xam ne li war nañ ko ci def dinañ ko ci def waaw ah, ba lu ñu yoon may mais lépp lu si war dinañ ko ci def waaw. Ah. ñu ngi leen di masawu baax waaw ñoo ñoo ngi leen di jégalu ñu ngi leen ñu ngi leen di masawu yéen it ñu ngi leen di masawu. papa ban souvenir nga ñu mën a wax si sa doom rek nga sànni si kàddu souvenir bi nag moom vraiment dafa bari mais nag nag yàlla xamal rek ne rek yoroon na ma yor bu day nii moom laajul woon sax muy tukki ne li mu yore woon doy na sëkk dañu am objet bu ñuy liggéeyee magam a ngi fi de mais magam privilégié woon na ko objet bi ba gune bi man koy yor à cent pour cent ñu di ci tedd di ci terlu di ci teral ay nit parce que gunu yu tuuti yi nga xam ne taxoon nañu ko buñ mësa dem géej bi ñëw seen li ñu amaas néew seen paar da koy da koy def deux jox leen tuuti am na mu leen dencal ba gunu yu am na si ñett ñoo xam ne ñi yàlla moom ñu tabaski ren ji te gunu yu ndaw lañu donc gunu bi amoon na njariñ loolu ci douleur yi la bokk man li ma mujj ma wax moom nag man daal xam naa ne daal mu noon daal yàlla daal moo xam maa ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko parce que gune bi melokaanam dafa doyoon waar ci man bi ma mujj wax ak moom ay sept heures et quelque sept heures ci ngoon timis di waaye jot li ma mujj wax ak moom mu ne ma papa daal fële si kër gi nii waxoon naa bàyyi ma daar pour mu yóbbu la fa nga xool la fa des lii lii lii lii lii mu dul loolu moom saye man ma siggi xool ka li ma gis bokkul woon nag li ma daan gisaat te kanam gi daf ma jox beneen couleur moom guddi bi wax naa ko yaayam tey suba neen couleur la ma jox lii am na nag man pour man dafa doon tàggoo moo waral mu doon moo jooju wax waaye ñëpp a koy yëgandoo ah. soo xoolee heure bi ñu ko rob heure xadara xadara juma heure boobu lañ ko rob mais macha allah mbooloo mi te boobu gune yi li leen naqari naqari na leen ba nga xamee ne sama doom mu ndaw bi moo ki nga xam ne moo topp ci moom moo xam ne mën a papa mën naa mën a nañ ko rob man dama ne woon dañuy bàyyi bu suba mën a buñ bàyyi bu suba du baax parce que gune yi fi mu nekk nii mer nañu am na ñu ay affaires yoo xam ne bu dee bu suba catastrophe dina am waaye mu fekki ka te jox naa nga raison aussi parce que bu ñu toogaatoon bu si ëllëg rek du baax. waaye yàlla suturaal nu ñu rob ko ci njëkk teranga mu am mbooloo mu doy ami ñaan ñëpp mu tilu na ko nu ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla may na xolu muñ ni daal laa xam ne bon mënuma ko ci bañ wax parce que maa ngi jox parole mu wax donc foog ma teg yooyu kàddu te lii ma bëgg a poursuivre nii ba lu nu yoon may rek nu jël ko bu nu ñàkk nu ñàkk bu nu am nu am ci ñoom ñaar ñi laa dépendre man kii moo topp ci man kii kële moo topp ci moom. mu ngi noonu dégg ngeen ko way juróom wu góor wi nga xam ne fi mu daane la nee na lépp daf ko jox ay rakkam ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si wàll yoon ñoo nekkoon si wàllu yoon nañ xam lan la si yoon war a def ñu def ko si waaye li si mënti am daal metti na ndax dégg ngeen ko papa waxee si soutien de famille la woon kon ñu wéy la rek ba tey suñu émission xew-xew si biir Tëngéej jokkul kaw waaw ñu ngi nii nag si kër gi yëg si nañu kër ñoom mbay ngoom ñu gën ko xam si mbaya faal ñu ngi toog ak waay juróom wu jigéen ñu ngi lay massa bu baax a baax yaay booy noo yëgee xew-xew bi dal sa kaw ah xew-xew kaw métti na torop métti na de mbaya bi moo génn fii dimbali ma moo taxoon muy génn si kër gi maya ba ma waxee mu ne may yaay bàyyi ma ma utti ñëw dimbali la bi ma toogee ba mu yàgg mbappe ñeneen mbappe di wax ma ne ko mbappe la xew mu na ma xaw ma taxawal ba si kanam ma ne ko mbappe wax ma li xew boo booga Mbeya Fall jam nee ka Mbeya daa génn tuuti rek ñaw woote ne jam nee loolu lan la loolu lan la kii la uti gi pour ay waajuram yow bàyyi ka mu dem daa ñëw wax ay waajuram waxtaan ay waajuram ay waajuram wax ka nee kaa wax mu génn dem aw yoonam ñaanal nan ka nag ndax sunu doom ja baax la Mbeya Fall da daan liggéey fii mënoon naa toog fii liggéey fii ak ah, comme li mu daan liggéey da liggéey fii di taral yaayam ak baayam léegi nag loolu xeeb naka mu ne ma yaay bàyyi ma dem comme ñëpp ma dem pour teral la ma ne ko mbaya mu ne ma billaay yaay bàyyi ma rek ma dem ndax yaay bëgg naa laa teral bëgg naa laa teral ndax li nu li defal nii dan la ko bëgg a fay dan la ko bëgg a fay ma ne ko nag mbaya demal te jàmm ñu wax si demal la jàmm salaam yal na la yàlla teg si yoonu jàmm mu génn dem anaan tuuti ngeen ma Mbaye Fall dóor ne ko fittal man Mbaye Fall xanaa da doon xeex waaye génn rek ñu dóor la fittal xanaa da doon xeex ma xeexul ma nekkoon mbayaat doon xeex ñu ne ma xeexul kii def lii nag te bi mu nekkee fii boogu ba léegi masula xeexaa kenn masula xuloo kenn man looloo tax mu jaaxal ma ñu jàpp dem fittalal ma ka nii ki ka fittal moom fittalu ko de man la fittal man dëbëgëy wóor na yàlla man la fittal ndax ki laa dimbali baa ka gisatul ah nan la laa dimbali ak ku lay dimbali fi mu nekkee yaay daan sa do yaay jóg daan gi sa doole pour dimbali sa boppa kii def di xamul li mu def def na la la def def na la rëy rëy rëy waaye xam nga ne ka ka rek ñumba bu ñëw ne ka cuppet yóbbu ko métti na métti na torop hmm? bàyyi gu ni ka ndaw ah jabar ka tuuti ka tuuti la yor doom ja ndaw la fi bàyyi jabar ji to tollu ni kii sax jabar gi la ndaw la ba duggee baa gisee da la waaru si yàlla ah di baaxul ah. na de nu dool nan mun nga voilà Pape ñu ngi nii toog ak ki nga xamante ne mooy soxna yi Mbaya Fall ñu fekk ko mu nekk ci liggéey bi donte metti na waaye dañ ko ci ñaan rek mu sànni ci ñaari kàddu soxna si ñu ngi lay massaw li ñu bokk. massawaandoo. moo nekkoon sa boroom kër. waaw sama jëkkër la woon. yàggul de. am ngeen bébé. benn. am ñaata at. huit noo yëgee xew-xew bi dal ci seen kaw. ni Maya dafa ñëw fii sax laa nekkoon sama kër yaay léegi mën nag ma ne sama biir day metti xaar ma dem sama kër léegi bi may dem sama kër si laa toog noonu ma ne ko waa Maya foo jëm. mu ne ma daa fu ma jëm ma ne ko waaye léegi yow boo dem doo ma tàggu man xaw ma kenn ku dul yow te mënuma toog fii sans yow léegi fan nga jëm mu ne ma jóg damay dem uti ngir teral la mu na ko mayaa bul dem loo am max yow mën nañ ko bokk léegi mën ne ko doo dem si la ne ma waa léegi kaay gunge ma lañ àndi kër magam bi kër Daw Wade léegi mën na ko du dem Daw Wade topp si di waxante man mën ko doo dem ku nekk ñu woo ko doo dem mën ma bàyyi ma dem après su ma demee du yàgg ma indi la foofu sama wet ñu dem kër ga man ko waa ñu dem wante terewul fi doo fi jóge léegi ñu ànd ba ci kër gi ma taxaw noonu ci balkon bi noonu ci jooy moom bi ma doon dem sax tàggu ma ne instant boobu mënuma woon a xool ndax ni ma doon jooyee léegi ci la ñëwee fekk sama doom fi mu tëdd ci kaw lal bi mu di ko takkal moos sa ma fil loxo bi naka doo ko takkal non doo dem léegi mu dima téem mu ne ko doo ma laal ndax demoo fen si gisaatuma ko ba tey si la demee après si guddi gi noonu si laa demee sama kër yaay du ut ko ma wéttali si néeg bi nag dama fay ragal si laa ñëwee ba fii mu ne si laa sama rakk bi nan dem nga wéttali ma ndax néeg bi dama fa ragal tam dem na ndax mënuma toog foofu sama voilà Pape mu ngi noonu mu nekk loo xam ne lu métti looloo la jeune couple boo xam ne bi ñu marié daanaka ci at lay toll huit mois ah bi ñu marié léegi ci at lay toll seen doom mu am huit mois deux ans deux ans de mariage doom ji am huit mois mu nekk loo xam ne lu métti lool looloo la bëggoon dem rek ndax teral njaboot ñu ngi lay massaw bu baax a baax ñu lay massaw yaay booy ñu daal di wéyalee suñu émission ba tey massa. maa leen di fay ndey. Euh, ñu ngi lay massaw sa rakk ji fi jóge. Mm-hmm. noo xew-xew bi ni ma ko yëgee dara neexuma si kooku dafa ma taxawoon sama rakk ju baax nday kooku bu jour bi muy dem mu may wër si dëkk bi mu ñëw fekk ma sama kër yaay ñu toog si tëdd si lal bi di waxtaan mu laaj ma na ma man de tisetu suñ Babacar laa doon wër ma ne ko tiset mu ne ma waa ma ne sama jëkkër am na bi mu am su ma demee dinaa ko jël mu ne ma déedéet ma ne ko mu ne ma déedéet bu ko sàcc jox ma seen gi nga takk ma ne ko du ma la ko jox ma dem wëree ko sëñ Babacar jox ko dindi ko loxo yi mu mu sol mu téye tiset bi na cey góor gaa ñi nii foo ko oo mu wuyu mu sol ko tëdd ba jour bi muy dem si guddi gi ñëw na kër ga moom waajul woon si jour bi lay door a waaj si jour bi la paas mu nekk sama rëkk ju baax fuddan bi ngay gis ni moom moo ko def si loxaam defal ma si defal si jabaram defal si samay doom kooku moo yoroon suñu kër. barke sëñ Babacar Si moo yoroon suñu kër mu daan toog na bés bu ma demee su ma amee yéen samay jigéen doo leen sonn may foo jëm mu ne damay dawali sama yaay sama njaboot mu toog ma ne ko xalaat mu ne ma dara ba mu yàgg mu ne ma papa jabar lay xalaat jabar ji 2003 la xamul dara mbayaa nekk xale bu ndaw xale bu baax mbayaa kër gi ngay gis ni li muy rëy yëpp moo ko yor mbayaay day daw guddi daw bëccëg mu nekk xale bu ndaw waaye kii def lii xamul bopp yi mu yàq xamu ka sax ak yaakaar yi mu tas ba sama jar jarbaatam yi yëpp day toogaay ñoom naan bés bu ma amee kii def lii yàlla na ko sëñ Babacar Sy weer te mag yi maa ngi bëgg a wax na mag yi yow booy tere géej nag bu ku kii da ngeen di suru waaye yow booy tere géej bu rey si kaw. yow booy tere géej bul rey si kaw yow léegi boo bëggee rey si kaw bëgg a tere géej booy xool géej moo ëpp sécurité kaw parce que yow boo xësee ba teg sa gaal di nga dem waaye bu dee kaw ñu dàq sama rakk bi dafa daw daw bay jàdd ñu dóor ko bal est que loolu rafet na kii def lii kii def li bàyyi naa ko ak suñu borom bàyyi naan ko ak suñu borom ak sëñ Babacar bi mu soloon ba dóor ko bal ba. yàlla na yàlla weer si barke sëñ Babacar si mi ngi yaakaar jërëjëf. kan mooy waxaat. Massaw. waaw ñu yëg nga am si mbayaa mi fi jógee. mu ne mbayaa papa ma woo man Ndar laa jógee ma woo téléphone rek ni ma wax ma nouvelle bi am lu ma metti torop papaam ak biir ak sama yaay ñoo bokk ay doom bàjjen doomu nijaay la après ñu tuddee ko sama yaay Fatou Diop Ndar la ñu jógee waaye affaire metti nañ torop mbayaa bi nga xamee yàgg na yàggul. mbayaa ku baax ku yëg nit mbayaa bëgg sama turandoo yaay rek kere bi may bi ñu mayee fii xewee ba pare ba dem dafa ma woo téléphone ni ma da ngay waññeeku ndax Fatou Diop day sëy man ka témoigne mun ma doo ñibbi fii leen fi laa toog am fi un mois billa affaire bi noonu la ñu méttee waaye ki def lii moom teg nañ lépp si loxo yàlla yàlla nu yàlla at teg moom ñu ngi wallaay metti na trop fu mu nekk ni lekkuñu guddi lekkuñu ba teg ñu ndax mettit ak nouvelle bu naqadi metti na trop ban yëg nga am si ki nga xam ne sa sa goro la woon ah metti metti torop doon loo xamante ni tamit lu ñu bett la ndax mbayaa dafa nekk nit ku baax nit ku gën amul benn problème bëgg sama rakk ji Fatou Diop lu mu am Fatou Diop lu muy def lu nekk Fatou Diop moom loo wax mu ne moom Fatou Diop parce que dafa nekk nit koo xamante ni bëgg na Fatou Diop yërëm na ko mbayaa nekk nit ku baax nit ku simple nit ku gëm boppam xamul lu dul liggéey jaamu yàlla jàppale yaayam yërëm yaayam jàppale tam ay magam ay rakkaam macha allah ndax mbayaa dafa nekk nit koo xamante ni nit ku am yar nit ku am teye nit ku am nit ku dal amul lu dul nag ay magam lu muy def lu nekk ay magam la si waxtaanal wala jabaram Fatou Diop moom moom Fatou Diop mooy xaritam bañ na ko avant mu ko daan takk sax moom xaritam la woon ñu daan ànd si lépp daan toog waxtaan kafre lu mu xam lu ne Fatou Diop mbayaa nag ki ko def li tooñ na ka ndax mbayaa dañ ko tooñ parce que deful lu bon mbayaa tuxul naanu deful lu ñaaw deful lu bon xamul lu bon mbayaa liggéey jaamu yàlla teral ay waajuram teral jabaram moom loolu rek moo doon reevam loo wax mu ne man sama sama yaay sama jabar sama famille mbayaa ki ko def li da ko tooñ ba si kanamu yaay ba si kanamu yàlla dafa tas yaakaaram deful woon lu bon lu dul dem mbëkki teral jabaram waaw mbayaa daal maa koy ñaanal yal yal na yàlla xaare sa àjjana yu kawe kawe yi lépp lu mu bëgg mbébatoon ko si jabaram ak famille mi yépp yal na yàlla defal fi mu nekk. voilà mbokk yi ñu daal di wéyale ba tey rek tey ñu fas yéene tëjee suñu émission ak ki nga xamante ne sœur la ci moom moom itam mu nekk perte bu métti sama xarit maa ngi lay. maa ngi xew-xew bi dal ci seen kaw. xew bu métti sax bu métti fii fi amee fi ma dëkk daa jege ñoom sama rakk damay wax ñoom ba nu ñu demee may wax moom. ba wax ko ay ñaan naan kaan defal naa nga max naa ba jox nga sa jabar taal nga ko loxo mu ñaanal la mu ne ma waaw man ko booy génne sa jabar bu dee ñaari fan sa sëyal na taal ko sa loxo mu ñaanal la dégg mu ne waaw ma ne ko baa def fépp def nga mu ne waaw ma ne ko gis nga am naa waaw ji ngay wax ba dem ba far ba tubaab yi ku wax nga ne waaw ma ne ko yàlla na leen seen liggéey seen barke bàyyi wàllu nagam may sa loo leen ragal ngoom yàlla boo leen ko gis yal na leen yàlla sàmm sàmm mboolem koo leen àndal koo leen fekkee ku leen di fekki mu ne ma waa mu ne ma waa yow boo ñaaree baax yàlla baax na ma ne ko booy génn na nga jàpp ndax kuy génn ku ne da ngay ànd ak jàpp mu ne ma waa mu ne ma si kanam ma ne ko waa ma oo ba ne waxaa moom tamit la même chose waaw ma waxaa ñoom ñu ne ma waa ma ne leen ah man de maa ngi gis seen gars yi romb xam nga rek magax rakk mu julli gee ba pare yow sama kurus dem taxaw si booru pharmacie satu ma taxaw si booru pharmacie satu ma taxawaa sama ak sama ñaari doom auto gendarmerie bi mu romb gis naa waaye pour man day doxi soxlaam nga ma toog gis xale yi maa ngi yor kurus man daal mel ni ku dëkk foofu te wa jóg ma toog ñu ko bañ naan auto gendarmerie moo ñëw tas na ful ba dugg na fi génn fii ma waa sama xarit bi am ku mu doomam bi kooku ne mu ne ko yéen dañ leen jàpp wala la ndax may dégg mu naan moo kii naan kaan béyaa la ñu jam sama rakk bi na ma sama xarit bi na caba mu ne ko mu après mu noppiwaat xale yi daw ba ñëw ñu ne eh mayaa la ñu jam de ka mayaa la ñu fan kooku ne ma déedéet du moom du moom man leen wax leen sama rakk bu njool bi kaleen ki muy taxaw mu ne eh dama ne kan lañ nga wax mu ne mba kooku daa mel dañ ne mbayaale mu ne ko lu mu óolu mu ne ko saag bu sama rakk bi sànni iset bi mu sol di daw may daw pour topp si gis sama rakk bi yor dem di jëli mbayaa ma xam ne ñaari malaat xaju si kër dañ ne ma da ko bronze moom mu dem di jëli mbayaa man ma topp sama rakk bi ndax boo ko deretam yëngu na topp si di daw topp si di daw ak sama fóon ma ne ay piti bu ma solo ay piti yëram la ma ay piti xalaa xamoon ne ñaari malaat baaxul petit xoolal si man petit di daw nekkati petit dem na ba gis mbayaane gaañu na mu ñëw ne policier yi yéen a rey sama mag di ngeen ma rey tey di ngeen ma rey tey policier yi nag petit moom petit ma topp kaa sama doom sama sama doom mi naa ma ma ne ko sama rakk bu ñu ko naree rey ñu rey ñu ñun ñëpp ndax rey nañ kii buñ si boole kii noonu ma dàq ka di daw ba si booru policier yi mu xam ne tey bu ñu tiiree bal moom du ko dal waaye dina ma dal mu ne waaye kaay njëriñ nañu ñibbi. kaay ñu retourné ñu ñibbi sama rakk bu góor bi booga policiers yi dem nañ bay visé que pour bëgg tiire ñu aj ka mu ne ma kaay retourné ñu ñibbi ma toppa si moom këri suuf ba site di daw su guddi gi di daw mu jël jakarta di ñibbi mu jógee jakarta di ñibbi sama papa maa ko oo téléphone maa nekk am ne leen bayaa dan koy jam bi mu retourné sama rakk mu retourné ñëw bi mu ñëwee mu ne sama rakk beneen bu góor bi ooka sa papa ma ne ko piti ñëwaat na te maa ngi war dem hôpital sama rakk bu koy wax nag dama jëli identité diw nga indi ko hôpital mu la tànk mu dem di ko jëli ma dem hôpital bi ma dem hôpital hôpital fees ñu ñu bokk ak moom sax ñu bokkul ak ñoom ñoo fa ëpp ñoom ñëpp xar nekkate ñoom xam nañ ne gaañu di ma ko nëbba ma leen wax leen ma lan leen ma la ñu naan dee rek ko te ma sampaa dama ko waaye mu ne ma nee leen gaañ bi metti na ma ne ko papa métti na mu ne ma xaa àggoo hôpital ma ne maa ngi dox di dem li ma dox dafa bari bàyyi ma dox dem su ma demee lu ma xam dinaa la woo ma dem fekk fa ñëpp mu fees dell nit ñi bokkaa moom bu doon jooy suñu rongoñ war na fekk ndax jàmbur yi fa nekk yëpp ñëpp a nekkoon message yi ñëpp ku ne di doom bu jigéen bi xar ñoom ñëpp xar après si la biraan génne na ma caba yàlla def na lii gën mbayaa gaañu ne ma nekk biraan bàyyi li ngay wax mu ne ma billaay gaañu na mu daal yàlla bu baax xam ne ba muy dem dafa dénkaani ay dénkaaneem dama ñun suñu àggee demee si jàmm waajul si jour bi la paas ku paas si jour bi waajoo suñu àggee si jàmm asalaam ba ñu yóbbu sama yaay sama papa màkk ma ne ko alhamdulilah ma loolu laa leen wax ndax man nit amul lu dul ay waajuram mu doonoon suñu yaakaar nag tey ak ëllëg ginnaaw yàlla ak yoon tabax ñu ñaani waajur mu ne bu demee ba def loolu ma ne ak ah, sama samay mag wutal leen ay kër ak samay jarbaar ma ne ko nag sa jëkkëraa sa jabaraa sa doom mu ne ma bu ma waxee loo xamal ne ñooñu laa jiit ma ne ko yal na yàlla mottali yal na yàlla mottali moo tax bu ñuy mu ne suñu de yaay daa am lu mu bébatoon suñu am lu ñu ñu di wax nag ne policier ma yi homme de tenue sax laay wax dëkk bi léegi dafa mel ni nit ñi ay kañale di jóg di tiire boo paree rien du tout boo paree rien du tout say mbokk ñàkk di defaat si leneen di tegle di rey di tegle di rey rey nañ koo xam ne ni social la social la ndax social weesuwoo man maay mag maay seen mag ñoom ñëpp ñu jaboote ay jigéen ñëpp di daw waar bëggu kenn ku mer boo ñëwee wax ka bu amulee sa dina lebi jox la di daw surtout man sam papa li sam papa feebar ñu nekk hôpital su ma xëyee mbayaa gont su ma xëyee mbayaa gont si sama ku feebar daal ñoom ñëpp ku feebar moom moo gën si yow am bébél moo xamante ne nag ki ko tiire nag moom na xam ne moom nag bàyyi nañ ko yàlla yàlla nañu yàlla àtteex moom na xam ne tiirewul mbayaaka seen famille bi yëpp la tiire rey na xol yu baree bari rey na leen si loo xam ne su lu ñàkk a fayda yow nit ki du dem géej yéen a ngi bañ clandestin géej pour bañ ñuy dem géej dee ngeen di leen rey si kaw ñu yor ay pistolet yor ay bal di tiire si daara mu mel ni léegi ñun amuñu président amuñu ministre amuñu député amuñu dara kon léegi jaratuñu ay homme de tenue ku nekk garder sa bopp boo garder sa bopp booy dem ànd naa def ko yi fi pël Antoine Diome tamit na génn wax si lii na génn wax si lii ëpp na lii ëpp na Antoine Diome la xaw ma mooy président bi mooy ministre bi xaw ma mooy député bi man du ma seetaan sax ay ay politique yi amalu ma njariñ ndax bu doon marché dee rek la xale bu marché doon am fii war nañu ñëw fii tegtale xale xamuñu dem di marché fii lañuy xam dem géej liggéey ci wàcce ñëw toog géej gi amul dara ministre Antoine na nag xaw ma na génn wax si lii bu su waxul dina ëpp loxo rey musul am si lébu yi du gën si lébu yi nag yëpp nañ gaal gu bëri vitesse gune yi du ndax dee la ñu yemale dee du ndax ba sama rakk bi lankan génn ñu dem mu nekk damay jàpp sama rakk bi du génn ñoo ñu dem ñi ñaay dem. boo mu ngi sërëm ne bi jàpp mu ne ko maa ngi lay maa ngi kon ñun am nan yaakaar si sama rakk ji dem ñaan yàlla cat bañ ko jiitu te li mu bébétoon si ñun yàlla nag yàlla defal fa mu ne si daraje Seydina Muhammad di ñaanal jabaram ji muur si génn si alhamdulilah rabbi alamin ndax solo lu ñu benn yoon mu ngi sëy sëy bu rafet sëy bu rafet macha allah la sëy yàggu fi waaye mel na ne yàgg na fi te yàlla sàmmal ko doomam bi mu fi bàyyi muy sëriñ googu ñu di Mbappe yal na ko yàlla sàmmal teewal ko te musal ko si cat ak làmmiñam ah, musiba bala di la wax ndey na la maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay sant di la gërëm téléphone rek laa déggante yow waaye mel na ni xam naa la fukki yoon yal na leen yàlla sàmm jàppale leen jàppale mboolem julli seen télé yal na doon ay télé télé si daraje Seydina Mohamed amin amin Thiaba amin dégg ngeen ko si ki ñu mooy Thiaba nekk mag euh, ki nga ne moom mooy Mbaya Fall euh, ñu koy woowee Mbaya Fall waaye mu Mbay Ngom euh, mu nekkoon xale boo xam ne 32 ans la am gis ngeen ko noonu 2 ans de mariage doom ji mu am si 8 mois lay toll mu nekk perte boo xam ne bu metti lool lool la li ko waral mooy xale yi dañ doon bëgg di dem fële nga xamante ne moom mooy Barça ay takk der fekk leen si tefes gi dóor ay bal am ku si ñàkk bakkanam kooku ñàkk bakkanam nag moom lañ ñëwoon tey seen kër fii muy Mbaya Fall mu nekk lu metti lool loolu dégg ngeen ne société la ñu rey donc lu ci mënti am rek ñoom mbokk yi nee dañuy topp yëfi ci yoon donc lépp loo xamante ne bees na ci incha allah émission xew-xew dina ñëwaat fii ci Tëngéej jokkul kaw indil leen ko ndax émission bi a baax a baax a baax a baax a baax yal neen yàlla yërëm xaar leen àjjana te li nga xamante moom la ñuy ji di ko uti yal neen ko borom bi jàppandala ba kenn ku ci nekk li nga yaakaar suñu borom defal la ko Pape Diop moo nekkoon ci caméra maa ngi koy jaajëfal baax a baax Serigne Sarr moo nekkoon